من asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Almouridiyyah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bu baax a baax. seen télévision Almouridiyyah TV ñëwal leen fii ci Typ dongo yi nga xam ne ñoo nekkoon ci daara ji ba lax ngërëm sàkku ci sëriñ bi fu fi mbay mi noppeetee rek ñu ñëw amal li nga xam ne mooy ngóob mi tey ji nag ngóobum tool yooyu moom la ñuy doon tàmbali tey mu doon nag ñeenti tool yoo xam ne. benn bu nekk boo ko xaymaa mat na fukki hectare ak juróom ñu tàmbali liggéey bi ba ñu jullee suba ba noppi di ko amal ci pasteef bu kawe lool boo xam ne nii euh, foo ko natt weesu na ko mbooleem dongo yi nekk ci daara ji ci jamono ji ànd ko ak dongo yi nga xam ne ñoom ñoo wàcce woon ci daara ji te sàkku ndigal li ci sëriñ bi mu nangul leen ko ñuy amal ngóob moomu sëñ xaadim bu sëñ Cerno moom sëñ Muntaxa moom mooy jëwriñ ji di taxawu liggéey bi ànd ko ak sëñ Basirou Ndiaye mi nga xam ne moom mooy jëwriñu dongo yi nga xam ne ñoo nekk ci tool yi kon seen télévision Almouridiya di leen wanale ak liggéey bu am solo boobu di leen wanale ak daaray tiib tiib nag digganteem ak Mbàkke fukki kilomètre ak juróom moo fi dox di daara joo xam ne ñu ngi ko sanc ci jamono yi sëñ Basirou sëñ Basirou doon ko taxawee di taxawu liggéey bi ci diggante jàngal dongo yi tarbiye leen taxawu leen ci yoonu yàlla liggéey boobu it dox ba yegg ci loxo yi sëñ safa Bassirou mu doon ko woyal ci passeef ak di tarbiya dongo yi di leen jàngal ab liggéey waaye di leen jàngal mbooleem xeeti xam-xam yu diine loolu dox ba yegg si mu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér lay li nga xam ne si ne sëriñ bi def na ko ci ñun jomb jomb noonu la ko kenn ci donga yi waxoon ne ko maanaam bi ñuy liggéey ñun danoo nekkoon ca daara ji di liggéey waaye bi nga nuy fay da ngaa xool na nga toll nga fayanu noona te fayin wa jomb nanu moo tax ñu dem ba mu yàgg ñu ne nag comme que lim nu defal jomb nanu te amul lenn lu nu ko fayee ñu ne suñ mbokki donga yi nga xam ne si ne ñoo fa nekkoon saa buñ bayatee tool yi ba mu ñor ñu takkatoo mboolem koo xam ne si ne jaaroon na ci daara ji te am na fi ngërëmal Serigne Touba ñu takkatoo waat ñëw mboolem lu ci war ci ngóob mi rek ak la ci aju lépp ñu def ko ni ko Serigne bëgg. maanaam yëgeegub sant Serigne Touba rek ndax dañuy dégg ci borom xam yi ñu ne bariwaa na ci jëmmi doomu aadama yi ñoo xam ne si ne bakkaar ya nekk ci seenu yaram julli mënu koo dindi jàng mënu koo dindi maanaam liggéeyal waa baax ba mu gërëm la rek moo ko mën a dindi ñuy sàkk loolu ci Serigne tubaa di ko jaar ci seex Cheikh mun taxaa mu dëxëñal nu ci nag bépp ngërëm loo xam ne si ne Serigne Touba mas na koo gërëm ci ku koy liggéeyal moo xam ña njëkkoon kam ni ko sëñ bi waxee wala ci ñu mujj sëriñ bi dox lu ngërëm loolu ci biir liggéey bi. ñun ñu war a sant ndax ñun ñi xam ne ñoon ñoo taxaw ni tey barab bii ñoo fi nekk di liggéeyal yàlla ba suñu borom uh, suñu liggéey mat sëñ bi yóbbu si yeneen ñu nekk fay liggéey bàyyi fi kii Abdoulaye Diop mii mu nekk fi nekk ji si dong li si dong yëpp ndax ñun ñëpp toog ay jëriñ lañ liggéey bi nag uh, barab bii de barab bu doy waar ndax yàlla dafa yàlla defee ñu ñëw fi sëñ Muntaxa da ko fonk lool waaye ba mu fonkee da cee jiital ni dañuy fa dem liggéeyal fa yàlla waaye liggéey bi ñuy liggéey euh, sëñ Muntaxa ku mas a xam xam ne ab liggéeyam li ci jiitu mooy njàng ak jàngale ba ba mu nos ñu ko ñëw mu juróom-ñett daara da cee boole woon loolu su ngeen demee den xëy liggéey du gonti jàng noonu la koy waxoon ko bu baax a baax a baax a baax waaye sëñ bi loolu loolu mu bëgg it ba tax mu maanaam yarnu ci ñu màgg ci nekk daal yi liggéey biñ ba xam ne nekk na fi ay yoon ba jóge fii mboolem ko mas jaar di liggéeyal sëñ Tuubaa dina ak sopp gu baax a baax ci yow mu gone yëpp sëñ bi it daa mujj sax doo nga yi nekk def di jàng alxuraan mu ne képp koo xam da nga jàng alxuraan ba bind kaamil na la indi fi nga jaar barkeelu fi mboolem tey ñi nekk fi waar yi ñu ci ëpp ñëpp jaar nañ fii ci daara ba delluwaat muy barab boo xam ne barabu liggéeyal yàlla la bu defar la bu yar la ni ko sëñ Bass Imaam a léegi rek daara itam bi moom yar dong la ak fas yéene maanaam lépp loo xam ne jikko ju bon la ju nekk ci yow ñu dina ko yow fas yéene maanaam ba boo jógee fii ci bi noonu yare boo delloo fa nga nekk say bokk nekk ab royukaay te loolu lépp euh, mboolem koo xam ne ñëw na fi gis na ko ci moom moo ñi fi nekk nii ñu leen di ñaanal suñu borom may leen ngërëm lu sell li li am ndax yéen leen ko lool lool lool lool lool ñun ñun ñii nag ñoo fi jóge woon dellu sa daara ja ñun ak ak yéen ñi fi ñëw ñun ñëpp yàlla na yàlla nangu suñu liggéey ak suñu tànk waaye ñun nag ñu wasante yàlla ndax bañ fi jógee lañ liggéey lépp dañ ca ñu ko kon bu ñu fa waatee ñuy liggéeyaat dañ ñu gën a dolliwaat loolu sant yàlla la ñu ñaan bu baax a baax képp koo xam ne jóge nga ci barab ñëw ci barab bii di liggéey suñu borom say tànk ñëw ak say tànk dellu lépp suñu Tuubaa nangu ko. dañuy santaat suñu Tuubaa bu baax ci boole gi ñu boole sëriñ bi ndax kat fii moom ñu ngi fi gis ëpp doole gi sax daanaka fii la ñu jaaroon waaye nag eh, yëg gu ñu yëg si sëñ bi ak ñàkk doyal gu ñu ñàkk doyal ci di ko liggéeyal moo waral teewaay bii nga fi gis ñëpp ndax xam naa ne ñu fi ëpp doole fii la ñu jaaroon waaye kenn ku nekk la nga fay def ci diir muy lu yàgg ak lu yàggul saa boo déggee ñëw sëñ bi tool yegg si na fii euh, doo bëgg lu ñëw liggéeyal ko moo waral mbooloo mi ngeen fi gis yëpp ci ñàkk xe maam yitteel gu leen liggéey bi yitteel moo tax saa su ñu fiy bëgg di fi teew bu baax ndax liggéey sëñ Muntaxa moom maam duñ ci doyal waaw boo gisee teewaay bi lépp looloo ko waral. ñu nag ñu ngi ànd ak waa daayira soppe Sëriñ Muntaxa di fédération boo xam ni Eh, mooy soppee Serigne Mountakha ànd liggéeyal Serigne Touba ci daaraam yi eh, awee ko ci Serigne Mountakha eh, ci kon kon noo noo noonu la liggéey bi demee liggéey bi nag ñu ngi ciy sant bu baax a baax ndax ku nekk xam na ne liggéey bi fii ñu ñëw muy tiib ñi fi nekk tawu leen waaye xam naa sëriñ bi bëgg mu bëgg ñu jariñu rek looloo tax mu woo ci liggéey bi ndax xam nañ ne fii moom defarug àdduna ak àllaaxira mu ngi fi. loolu rek xam naa moo tax mu booleñ ci waaye teewul ñi nga xam ñoo fi nekk loolu nag dañ koy sante Serigne Touba bu baax a baax a baax. kon nag tey ko ñu ngi nii si tool yi tii bi ñu ngi ci ànd ak mbégte moo xam ne fas yéene cee liggéeyal Serigne Touba rek fii ba suba fii ba ginnaaw suba heure bu waar yu paree rek mën ko ñu delluwaat Touba Daaru Minam. daayira bi ñu bokk nag mooy daayira tarbiyatu wa tarxib li kulli man yaxtam fi xidmat Seex al Xadim sëriñ bi ci suñu pas-pas ak suñu bëgg lu baax eh, bi na amee xemmeemteefu liggéeyal sëriñ bi ginnaaw ba ñu jógee ci daara ji ci lañ sos daayira bi tuddee ko daayira tarbiyatu waaye Serigne Mountakha ci bëgg lu baaxam akuk yaatalam euh, fépp lu baax lépp euh, lu baax fépp fu mu nekk rek mu jàpp ne euh, moom wàllam la ci la yaatal daayira bi tuddee ko yokk ci li kulli man yaxtamu bi xidmati Cheikh al liggéey bu bokk ci kër lu ci bëri dañ koy ñoo ci faral di nekk boo ñu gisee boo nee Porokhane da nga ñu fa gis fu bëree bëri muy liggéey Serigne Thierno Mbacke muy xalifa Cheikh Mamadou taxa ak fu bëree bëri foo xam ne liggéey Daaru Minam la ñu ngi ànd ci ak suñuy xarit ak ñuy soppe muy daayiratu al irada wal ma ñun ñii nag tey ma ànd ak sëriñ Abdoulaye Ndiaye mi sama ndeyjoor ak sëriñ Modou Sylla euh, tey ñu nekk ànd ak soxna yi ci waañ wi nga xam ne ñun ñoo yor wàllu euh, waañ am nga xam ne li yi xéewloo tey ci bis bi ñun ñoo koy toppatoo bu waxtu jotee incha allah bi ñu fas yéene def ko ni ko mbooloo mi bëggee euh, yët leen ko mooy li jëm ci wàllu añ beeg café yeeg ndox yeeg yëpp rek sant nañ yàlla baax te am nañ ci xel mu dal baax a baax ndax euh, lii di wàllu xéewal muy lu jëm ci wàllu lu añ yi tabaarakallah yaakaar naa day ëpp waaye du manqué wàllu ndox yeeg kafe gi it yéen loolu gis ngeen ko seen bopp yaakaar naa moom kenn du fi nekk di xiif mbaa ngay mar wala ngay bëgg kafe wala ngay bëgg loo aw ñam moo lekk mu di fi mu di lépp fàggu nañ ko ci kàttanu sëriñ bi ba suñu borom yombaloon nañu ko it ci baaxu sëriñ bi. ñu nag lu kafe nekk nañ benn kuréel ci biir daara bi ci tiib boo xam ne sëriñ bi moo ko fi ci biir daara bi mu sos ko fi ak muy axlu kafe ñu taxawaay tak tey ci liggéey sëriñ bi ci wàllum ngóob mi ci Daaru tiib ci ay dongay boppam yoo xam ne ñu ngi ci tiib mu sasoon ko ay taalibe ak mbooleem soppeñ tey nag ñu amoon ndigal ñëw fi fas yéene gunge liggéey bi ci wàllum bernde muy kafe ak mbooleem luy bernde rek ci kii bi sama axlu kafe mu ànd ak ñoom ñu gunge ma wéetu ci benn yoon ak mbooleem soppe yi ñëw nañ ci ngir gunge ñu ci liggéey boobu ñu am mbégte bu baax nag ba ñu sëñ bi wóoloo ba am ci ñun yaxin ka ne mën nañoo ànd ak mbooloo mi mu jox tool yi bañ mën a jor bernde di leen ko kii ndax ndigal sëñ baax ku yàlla jagleel nga am nga mbooloo ca tawfeex ñi ñu fi dajale eh, dañoo day seen kër ndey ak seen kër bàyye ni seen maam yi baaxoon def ànd ko Sëñ Tuubaa ñoom la noon noon ñoom noonu yi lañ def ñoom it ànd ko Sëñ Sëñ Tuubaa mii waaw gàddaay seen kër ndey ak seen kër baay di sàkku ngërëmul yàlla yàlla tax eh, léegi nag eh, nu itam lu baax loolee la ñuy sàkku moom lañ xew ak ak ak ak jublu leen a jaajëfal ak jublu leen soññ Euh, loolu moo moo moo waral suñ tànk yi nuy itam euh, ndax ak terbiya day loo xam ne euh, jagleeg sëñ Tuubaa la waaw muy terbiya gi ñu xam jagleeg sëñ Tuubaa la waaw ndax te day day day suñ suñ borom bu fekkee ñi nga xam ne dañoo sóobu mandik mi nga xam ne moom mooy maye ngërmul yàlla am na ku ñu wax suñ ma dem nee na Sëñ Tuubaa nee na ko bu fekkoon àjjana luy jeex la ñi nga xam dañoo sóobu mbanding moom di wut ngërëmul yàlla mu ñu mel ne ñii fi nekk nii di sàkk ngërëmul yàlla su fekkoon luy jeex la da koy jox benn yoon ñu yóbbuloo ko fii <laughs> waaye nag àjjana du luy jeex kon nag eh, loolu amul lenn loo ne kawe na ko waaw te ngërëmul yàlla it eh, moo gën a màgg leen leneen lu mën a doon mm-hmm. ndax eh, àjjana rek dugg ca yomb na ndax euh, am na ci magi sëñ Basiru yi euh, koo xam ne daa amoon ci karankar gi àdduna yu mu nekk euh, sëñ Basiru ne ko diw mu ne ko Mbàkke mu ne ko yaa ngi sa karankarang ji ba léegi rek mu ne ko waaw waaye nag man de karankarang gi ba nekk sa nga àjjana rek ne ko mu ne ko waaye ndaw àjjana yi gàcce mu ne ko ah àjjana dinaa ci dugg rek <laughs> mu ne ko waaw Mbàkke luy àjjana yi gàcce mu ne ko mooy ki nga xam ne daa gàddaay kër ndeem ak kër baayam ñëw fi sëriñ bi waaxu dugg àjjana moom képp tey buur lu bokk ci moom mm-hmm. nee na képp koo xam ne daa gàddaay ñëw ci kër sëñ bi war na buy dugg àjjana lépp lu laal ci moom mu yóbbaale ko te loolu nag la koy maye mooy sellal sab liggéey ak la ngay sàkku ba am la ngay wut looloo koy maye fii nag lu fi maye dara moom daa yomb ndax menn ngont dong de jëru fee xeeb waaw ndax ngont murid saadix mu ñu nangu mook juróom-ñaar fukki at yi yàlla yiñ nangu ñoo tolloo waxuma laa nag di xëy xëyma ak ngontuma waaw loolu li tax mu wax ko eh, suñ mbàkk bi mu baax ma daa mos a bind ab kaamil ci weeru koor woo xam ne weeru koor daa feeñ mu tàmm di kaamil bi bi ñu seen seen mu njëkk kaamil bi jeex mu ñëw jëbbal ko sëñ bi mu waxe ko ni mu ko defee sëñ bi yéem ko lool si jëf ji de mbàkk réy na lool waaye defal naa la ko ngontu murit saadix waaw waaye moom loolu it xaj na firi ko dana ko jafe mm-hmm. mu ne ko waaye da nga dem Cheikh Ibra Cheikh Ibra mm-hmm. wan ko ko teyit eh, wax ko li ma la wax mm-hmm. eh, Cheikh bi bi bi bi ñu ko yëgalee ne ko suñ bàkk bu soo ñëw daa tiit daa jóg bi mu demee da ko yenn ne ko tànk mbokkum suñ tuba ëpp na ci man ba teg ko ci lal bi mu ne ko waaw dama am ndigal ci ñëw gi fii ndax sëñ bi dama ko doon bindalub kaamil mm. bi weeru koor yu feeñee mm. ba ba ba ni mu jeexee kaamil bi àgg ma jébbal ko mu ne ma defal naa la ko ngontum bu saadi mm. waaye daanoon bala dem naa ñëw ci yow mu ne ko ak gore Mbàkke da cee dugalug bokk de moo tax mu defal la ko waaw dugalug bokk de waaye nag boo demee ne ko Ibra nee na nga booleel ma ci xëy ma waaw moo tax bi mu dellu si sëñ bi mu ne ko dem nga mu ne waaw mu ne ko lu mu la wax mu ne ko ah nee na ma defal da nga ci dugalug bokk de waaye nee na nga booleel ma ci ko waa la am na nag ku doon ku koo xam ne doon laa sëñ Basiru luy ngont murid saadix ci la leen wax ci la ko waxee lii ma wax léegi ne ko bu ñu ko doon misaal tey mi ngi mel ne koo xam ne daa tey jaamu yàlla ba am juróom-ñaar fukki at mm. te noonu ngont murid saadix muñ nangu am na ko kon nag ñu nekk fii di sàkku ngërëmul yàlla. Mm. ñooñu li seen seen tuyaaba. Mm. mën naa am fu mu tàmbalee kenn xamul fu mu yem. loolu nag képp koo xam am na am na ndimbalu teg sa tànk ci tool yi. Mm. yow am nga loo xam ne yow. ak sant moo la des ci àdduna jort waaye amatul leneen sëñ bi desee la sëñ Muntaxa daa defoon lu ñuy téere bu ñuy wax tontul sëñ jàng lu am solo da nekk dañ lay defar ba ba nga xam ne sëñ Tuubaa daan defaree ba boo fi jógee bu la ne wut seexal naa la sax Eh, day am jikko yu nekk ci yow yoo xam ne nit ka nga dendal da koy sentir ci yow da koy gis ci yow ba mel ne eh, dalay da bu ne wut la wut tey jébbalu naa ci yow nga dem sëriñam itam daanaka dalay bàyyee boppam bàyyee boppam goo xam ne bàyyeewu ko ndey bàyyeewu ko bàyyi bàyyeewu ko keneen kam ne mooy sëriñam kon loolu dafa am kilifa gu baax guy wax ne man am murit bu may jaxasoo moom li may mujj xam ci moom mooy kuy sëriñam waaye loolu loolu itam moo ci am solo am kilifa googee itam yàlla daa def am ñu ko ñu nekk ci wetam di jëflanteeg moom ba am soxna su ne ko ñii de xam naa ne bu ñu jébbaloo yaay doon seenub sëriñ mun leenu mu ne leen waaye seenub sëriñ de xam man di yëg naane ne seenub sëriñ ëppale ma ci ñoom loole itam ay ay ay ay ay message la yu am solo kon nag euh, euh, Cheikh euh, kon waa Daaru Tansil waa Daara ja ñoom tey ñëw nañ. Euh, bañ fa yebalee oto démb ci ngoon ñi war a mën a ñëw ñëpp dugg nañ ci oto ba ñu mënta ñëw te it ngir oto ba euh, soog faa des ñenn ña des fa itam ngir taxawal ñenn ña ci njàngale ma mbokki taalibe yi fi teew mbokki jullit yi ci turu Seex Muhammadul Muntaqa ak bokki boppam yi mu àndal te bi boole ko ak ñoom muy sëriñ Massamba mbake sëriñ Abdul Hakim sëriñ maam Cheikh Ibra ak seen doom sëriñ Xaadim mi ngi leen di jottali kàddu yu sëriñ bi ak i nuyoom ak i siyaaraam sëriñ Basiiru yaag bokk yi nga xam ne yéen a bokk yéene bokk pas-pas am yitte ju rëy ba tax ngeen faboo nii defee nii loolu day loo xam ne day lu sëriñ bi yëg day lu ko yitteel ñor ko lool itam bëggit mu firndewu ndax li ngeen di def seen bopp ngeen koy defal ay doom ngeen ay taalibe ngeen man ngeen ko fee wuutu man ngeen nu fee wuutu ndax noo bokk luñ doon ci moom waaye nag bëgg a firndeel xamal leen fi seen pas-pas toll ak seen yitte ci moom ak seen yëg ci moom mooy sababus sunu mbokkum taalibe sunu doom sëriñ xaadim bu fi yem bu fi nekkoon mu doy sëkk sëriñ ma Masamba waxaaleesu ko ndax moo fi wuutu sëriñ bi wuutu nu fi ak képp koo xam ne ñi ngi tudd sëriñ Basiiru di ko tudd mu mate ko sëkk doyee ko sëkk ak sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Hakim kon sëriñ bi sant na waaye nag ñu gën a sant ndax loolu yitte kawewu ko yëg-yëg kawewu ko bu nu xamee la tax mu def ko te gis ko danañ xam ne yitte ak yëg foofu la yem te gannaaw pas-pas fu nit ki àgg yëg-yëgam ak yitteem rek moo ko fa yóbbu <coughs> kon nag loolu sëñ bi nee na amati nañ jaajëf amati nañ jaajëf xolam sedd na xolam dal na yaakaaram yokku na ndax tey mbooloo mi liñ fi teg sunu bët lépp ay ndaw lan ci góor ci jigéen te dafa mel ni ñooñu rek ñooy lépp ndax ñooy ñi nga xam ne taxaw lu taxaw te taxaw nam war a taxawee ñoo ca gën ndax na leen yàlla def ak seen tolluwaay ñu mënoon a dëgmal àdduna wuti àdduna ci na ko ñeneen ña di defee waaye nag nu am tawféex teel a gindeeku ci sëriñ bi xam ne sëriñ bi rek moo war a nekk yitte moo war a nekk ak jublu ñu bokk yéene bokk pas-pas bokk ak jublu ànd ngir yàlla dox doxin wii ñu doxee muy doxin wu rafet ku xam doxin xam na doxin kaweewu ko kon xolub sëriñ bi sedd na guy xelam dal na jëf ji mën na jëf rafet na sel na matale na kon nag Serigne Touba mi tax ñu di ko jëf ci ronuk Cheikh Mountakha ci barkeb Cheikh Mountakha pas-pas yéen jóge ak yitte ya ak yëg-yëg ya ba jëf lii nu jëf yàlla nañu ca gàttandu boole nañu ca ak lu kawe sunu njortu ci yiwi tawi ak yiwi ëllëg ak yéwenuk tey ak yéwénug ëllëg te lépp ñu delloo ko di ko jëfale sëriñ bi. yéen ñi bëgg a topp suñu programme TV wala rajo te yore appareil Android mën ngeen télécharger suñu application ci www.almouridia.com bu dee yéen ñi yore iPad wala iPhone mën ngeen télécharger suñu application ci Apple Store wala ci www.almouridia.com. Al Mouridia à la découverte de l'univers Touba.